الأسلم من المسعود الناجي التواجي المسعود الناجي tubaab bi daf ñu ne ci benn tur moom la yor Sénégal fii ak lu nekk ci ginnaawam ak ci kanamam maanaam bari na béréb Sénégal bi war na mën a yor Sénégal dafa ci benn minute benn minute moom moo defar dëkk bi dëkkee baax dëkkee liggéeykat yu bëri ay junni junni jaareen ci taxaw ci tax ay école taxaw ci tax lycée taxaw ci tax lycée ak yow raw képp yu bëri yi nga xam ne moom mooy jiitu di Saafara dafa nekk jotaat di Saafara. lan lay def day fekk ku nekkoon fukk wala ñaar fukk yu dund nanga di Saafara dafa fekk Sénégal dem na moo tax bu ñu war a intervenir dinaa programme bu am solo bu taxawal ci ñun yoo xam ne dinañu suqali Sénégal ndax ndax tegaloo ay tegaloo béykat yu bëri yu ñuy wax ay sous-traitants ak ay prestataires de service boobu moo tax bàyyi ci ñoom ci bàyyi ci ñoom ñu ne la koy wetu. donc dinañ taxawal ay usines yu mag waaye dinañ taxawal ay usines yu ndaw ay petites et moyennes entreprises yoo xam ne dinañ def ay incubateurs mooy bu ñuy jàngalee xale yi nga xam ne dañu doon mën a musique en plus de façon wala lu mu mën a doon tey da ngay yaakaar ni tey lii la dund da nga war a def sa sa atelier bu ndaw rek nekk di ko sori alors que sa atelier bu ndaw

dañoo war a fekk sa kër taw la taw moo war a taw tey boo tax mu am suñ ci am doole nga mën a taw ba ci biir réew ay Mali ay Mauritanie ay Nigéria yëpp taw la ko ragal daf leen neex waaye Sénégal taxawoon ci wàllu boobu loolu tax ñu dimbali ak ay dimbali yi nga xam ne dañu dimbali képp ku nekk d'accord mu dem ñoom baan ak dëkk yu mu nekk baan bu ko nekk dafa problème teg ci suuf bi ak joxe suuf bu la neexee wax na ko muy béykat bi mu ko waroon béy loolu dañ leen di jëlee foofu ñu nekk ak yow bu yëg ci suuf loolu dañ leen di

comme Louga waaye fépp ci xool bi ndox problème la danañ ci waxtaan ak danañ góor danañ bànn comme yeneen ci mel ci mel bi ngeen gërëm di leen faral. jàppale leen ci élection yi jàppale leen ci xam ne bu tàggatoo jëm ci kanam xam nga ko bëri na moom. Ça va bien? Alhamdulillah. Ndiaye juddoo fi mu yaroo fi fi mu fekkee baax xam nit ñi nit ñi xam ko topp ci ginnaawam bu mu daree woote Thierno Alassane Sall avant élection législative deuxième dame deuxième dame Assane di woote Thierno Alassane Sall ñu ni ko kan mooy Thierno Alassane Sall mu ni kooku yaakaar waalo incha allahu rabbi lépp lu muy wut bu ko amee dina ñëwaat fii ci wàllu xam ñun ñooy kat mu defal ñu léegi mais nag dañu am lu ñu métti lu ñu métti mooy li nga dalee dégg léegi mu lay soog lu ñu métti di jeex asana yi yaay ni gars yi Thierno Alassane Sall dénk na la Assane ñu ngi lay ñu ngi ñu ngi yaakaar li ñu li ñu bëgg ci bàq weeru koor lépp li nga xamante ne jàmm nañ ci yàlla yàlla nangu. monsieur Diallo nangu. yàlla la ko yàlla may. bu la ko yàlla may gis nga kii. gerte moo tax ma gëm politique. moo tax ma gëm ni moom nekk gore ci politique am na amul Assane Mbaye amul loo koy wax si Assane Mbaye bu mu la gëmee ba léegi amul loolu adversaire boo ñu mënee bu dee si si moom bu foofee te du ko bañ lépp li ca la Assane ñun xamuñu loolu de waaye moom la xam lépp ci ay coono yaakaar ñu ngi bàyyi ko rajo ñu bàyyi ko rajo jaar Bambey dañu jógee Bambey bu tàgg jaar Ranérou Kaolack Ranérou Mbacké Touba ok waa Touba. suba ñu jàpp ñu ci Maroda ñun jeunes yi bëgguñu lu dul liggéey parce que ñun ñi fi ne liggéey moo ñu tax a jóg ku ci nekk da nga nekk un père de famille da ngay liggéey pour am loo yu ko si jeunes yi di nekk soxla nañu trop dañu yor seen oto di liggéey di leen di buntu xatal di leen jàpp guddi ak bëccëg te amuñu lu dul suñu liggéey kon ñun ci programme bi dama bëgg ngeen taxawuñu aussi ngeen jàppale jeunesse parce que jeunesse bi sonn na trop parce que ñun ñu fi nekk di def wargaynde Saint-Louis Ross Béthio aussi tey boo amee malade ñun ñooy transporté malade di leen yóbbu Saint-Louis tey mënuloo jël malade di ko yóbbu ci benn minicar pour mu dem Saint-Louis balaa yegg mooy kon il faut ngeen jàppale ci programme bi ñu dugal ñu ngeen dugal ñu. waaw yéen ci programme bi sax xam nga lépp lu daj mais dama naroon wax ci chauffeur si ba damay daaneel foofu ñoom ñoo ma njëkk a interpellé. chauffeur si d'abord dama wax waxaat naa ko ay yoon i yoon nga dem mooy oto yu nekk 60 ans ci kaw ci biir réew mi. mooy soxal comme garage yi ñu soxla ñu ko yokk 60 ñoo fi nekk te ñu ne oto mooy def plus de 8 ans dafay dugg loolu jaaduwul xanaa oto plus de 8 ans moo gën a fees oto plus de 60 ans yi donc dañoo war a libéraliser un peu plus. 5 505 yeeg 7 places yi am plus de 60 ans wala 50 ans loolu dañ leen war a changer. war a jógee war a jógee donc dañuy yombalal oto yi ñuy duggee. léegi ñu wër yëpp ñu gën a baax oto. deuxièmement li ngeen di tuddee tracasserie policière daf ko war a jóg loolu dama jël engagement.